Salam alaikum la mifa, j'espère que les cool et que tout le monde se porte hyper bien. Alors merci et bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221. Bien sûr la chaîne des news, des plus belles chroniques, mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc jusqu'à présent vous vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.

popey delloo ubbi gàddu ngeen jugee si day ni ko sas ko ñoo tey maani bi taxul ma tàkku me teg bi ba tegu si ak ñoo am ki ma jekku alors gars yi gis ngeen tuuti ci sound bi c'est intitulé No Fake kii nag mooy Sanzo Sanzo est l'un des meilleurs jeunes rappeurs à bu ñu wax talent genre rappeur yu mel ni moom moo tax ñuy wax talent car day bind lu dóob yër flow bu neex am technique aussi te tamit sound yu am qualité lay génnee moo tax ma ni leen c'est l'un des meilleurs jeunes rappeurs à Thiès te genre yi boo leen jàppalee teg leen loxo bàyyi leen xel bu baax a baax rek ñu dem macha allah. alors sound bi nag Ego Trip la te sound la boo xamante ne ni day wane ni moom dafa yàgg ci biir game bi mais amul benn moroomu rappeur am bu ko jëmee clash wala mu sànni ko pic amul. parce que euh, premièrement bu leen ko dégloo mu ngi naan duggal ci man di nga doon gel lool ban rappeur moo sañ a dugg ci moom Ego Trip pour titre rappeur yi. genre pour titre rappeur yi nga xamante ne nii dañoo bëgg dugg ci moom wala ñu dugg ci ay 18 mais nag nee na rappeur bu dugg ci moom di nga ko regretter parce que dina la def jigéen ñoo ko déggandoo moom moo ko wax. deuxièmement mu ne waat waxal gars yi nañ arrêté clash yi man dama saal bon avertissement la pour rappeur yu koy bëgg clash sound bi nag à vrai dire nice na bari na technique yu mu fi wane bari na enchaînement tamit yu mu fi euh, wane. te day firndeel talaawam te tamit wane na évolution ci biir sound bi mais par contre bariwul moo clé yoo xamante ne ni dinañ ko fi mën a expliquer mais sound bi moom macha allah moom ci euh, moom rappeur bi ci boppam am na technique am na flow lépp a ngi ci moom donc s'il vous plaît dem leen ngeen suivre ko partout ngeen jàppale ko teg ko te tamit bàyyi ko xel bu baax a baax il est un jeune très talentueux moom Sanzo. donc je ngi vous wax leen seen ci à ak de sound bi à vos claviers n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker Kenza 221 le bien sur votre animatrice luxe la grande chroniqueuse rendez-vous très bientôt sur notre chaîne YouTube Kenza 221 à la prochaine bye bye